jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 mbokk yi ñu dellu am mbégte dellu siwaat euh, ci seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokki nag euh, tey ñu dellu am mbégte invité Amath Suzane Camara moom mu nekk responsable politique APR du militaire fi nga xam ne mooy ci Koungheul. waaye tamit mu jiite syndicat bi nga xam ne moo ëmb jàngalekat yi nekk ci préscolaire ak euh, élémentaire moom la ñu invité tey fa yéene séq ak moom waxtaan euh, Amath Suzanne Camara euh, Rewmi FM maa ngi lay waaw Abdou maa ngi lay fay bu baax di nuyu aussi képp koo xam ne mu ngi ci groupe bi. Mm-hmm. réew mi réew mi FM. Mm-hmm. di fi liggéey di fi xëy ak kilifa yi fi nekk yépp waaw di nuyu aussi képp ku ñuy déglu. Mm-hmm. waaw képp ku ñuy déglu kuy sénégalais. surtout nga nekk ci biir réew mi wala boo koo xam ne sax doo sénégalais mais yaa ngi ci biir Sénégal di fi yeewoo ak sénégalais yu nekk aussi si jaspora bi. waaw Koungheul aussi bi nga tudd maa ngi nuyu waa Koungheul yëpp. di nuyu et képp kuy jàngalekat ak ñi ma bokkal syndicat. Euh, jërëjëf euh, Amath Suzanne Camara ñu commencé ak li nga xamante ni moom mooy actualité actualité bi fi mu ne nii boo xoolee euh, ñoo ngi wax mbiri Ousmane Sonko Adji Sarr yàggatul doyen des juges dina ko woolu ak du ko woolu ak Ndeye Khady Ndiaye mi nga xam ne moog Adji Sarr semaine bi ñu dëgmal doyen des juges dina leen dina def benn confrontation si ñoom beneen bi tamit fan yi dégg nañ benn audio boo xam ne ñenn ñi njort nañu ne Mamour Diallo moo si wax ak aji Sarr. Euh, yow ngay acteur politique euh, lan mooy sa xalaat ci lii ma la wax. waaw euh, xam nga dossier Ousmane Sonko ak Adji Sarr vraiment dafa war a gaaw jeex ndax boobu ba léegi ñu ngi ciy wax. lu war a gaaw xam nga loolu rek xam nga loolu tey boo xoolee mën naa ne sax amul benn njëriñ Sénégal lan lay apporter Sénégal. Mm-hmm. man gisuma ko vraiment dossier boobu man gisuma lu muy apporter Sénégal parce que Sénégal développement la ñu wax. lu jëmale réew mi kanam. mais loo xam ne euh, ay wax la ay sos xam nga ku nekk di wax jëmale sa côté ba pare aussi ay nit di ci dee. génn ci àdduna euh, au lieu que tey ñu waroon fexe ñooñu ñu xool euh, seen nan lañ def ba rey leen kan moo leen rey. ak enquête bi donc. waaye loolu moo gënoon nekk sax farata. ak ñi si seen liggéey yàqu ñi si yàqule ah parce que am na ay kii yu ñu ci taal mm-hmm. ay bërëbu liggéeyukaay yu ñu yàq donc man defe naa loolu boo ëppoon solo que taxaw fii di wax ju euh, euh, Sonko ndax yegg na ci Adji Sarr wala yeggu ci mais quand même et puis dafa nekk sujet boo xam ne vraiment euh, dafa doye di waaw Sénégal gàcce la ci Sénégal vraiment Sénégal ñuy toog di wax ay affaires ay xam nga loolu c'est tellement intime Sénégal dañu xam sutura dañu xam kersa mais euh, affaire euh, jëkk euh, affaire sëy ci ñoo xam ne duñ jëkkër ak jabar donc vraiment c'est tabou au Sénégal nañ waxante dëgg. bu ñu gisee Amath Suzanne Camara ñi nga xam ne ñooy mouvance présidentielle ñoom chaque jour aussi ñoom ñoo ngi si wax dafay mel ni ñoom bëgguñu mu fay. mais xam nga tey aussi boo bu ñu wax bu ñu xoolee histoire rek. mooy euh, affaire bi bi muy siw benn journal moo ko génne. donc la presse. Mhm. kooku xam nga kooku du pouvoir. Mhm. ensuite bi bi bi ko presse bi génne kan moo njëkk a wax ak kan moo njëkk a commencé wax Ousmane Sonko. Mhm. mais déggoo pouvoir bi kenn wax. te dañ doon wax ne sax président Macky Sall moo ne moo joxe ndigal ne bu ci kenn wax kon xam nga kon. Euh, te loolu Ousmane Sonko lu mu si jublu woon c'est la bataille de l'opinion et te boo xoolee aussi presque gagné na ko la bataille de l'opinion oui boo xoolee presque gagné na ko parce que xam nga lu tax mu gagné ko d'abord moom rek moo doon wax moom rek mooy wax mais aussi euh, euh Sénégal dem nañ ba dugal ci xelu nit ñi que ne opposi non opposition moom lu leen dal rek dañu ne pouvoir bi moo leen ko teg complot la nangam sàngam nàngam donc ñu victimiser wu dafay yomb alors que ñun pouvoir lu ñu dal rek ñu ne acca wax ay sàcc lañ ay góor jigéen lañ ay lii lañ ay laa lañ xam nga loolu aussi neexul te dañuy fàtte ne ñi nekkoon ñi ne ñi ñun ñu nekk tey pouvoir mais opposition lañ nekkoon tey ñi nekk ci opposition tey ñoom ñoo nekkoon pouvoir. mais yéen itam noonu ngeen doon doxalee. <laughs> waaw léegi même su man gëm naa ne ñun doxalee woon noonu mais même su fekkee ne loolu la. mais ñoom ñi nekk opposition tey war nañ xalaat ne ëllëg ñoom ñooy nekk pouvoir. waaw mais Amarson Camara yow bi ngay nekk opposition lu ne nit nit dégg na ko fii. <laughs> Ah, Abdou Khadre bu ma reetaan ah, ma reetaan la waaw c'est vrai que ku ci nekk ak sa rôle. Ah. waaw boo nekkee ci euh, euh, opposition moom euh, da ngay ŋàññ pouvoir bi maanaam xool loo xam ne pouvoir bi waroon na ko def ci lu baax defu ko yow. nga nga nga wax ko wala boo waroon na ko defee nii defeewu ko nii loolu dëgg la. mais mais ñu jàpp ne complot la nag. bon man euh, affaire Ousmane Sonko mënuma jàpp ne complot la parce que fekkoon complot la euh, euh, président Macky Sall moo koy jiite wala ñu ko jege jiite ko mais man gisuma kenn ku jege rëkk-rëkk président Macky Sall parce que tey ku ko jege mooy koo xam ne directeur de cabinet la moo xam ministre de la République la. comprendre nga par exemple yor ministre de la ministère de la justice wala ak yooyu comprendre nga mais ñooñu ñëpp man leer na ma ne ca affaire bi bi muy commencé ñoom laale wuñ ci loolu moom c'est la vérité man bu amoon aussi kon du ma ci sonnee ah, noonu wala du ma tey euh, amaat mbir mi bi muy commencé mhm. mën naa am ñii nga tudd nii mhm. yëguñu ko woon mhm. bi ñu jégee mu ne tëll ñu jël bal bi bal bi jóg ñu ñu ñu bala avant muy boo ñu teeku ndax nguur dafay prox ndollu mhm. ci mbir mu xew. Mhm. mu ñëw ma accéléré ko mhm. est-ce que du loolu moo ci am. waa li nga wax aussi xel mën na ko nangu ak yooyu parce que euh, euh, sa sa ennemi wala sa adversaire politique xam nga yow yaa ngi seet toujours foo foo ko foo ko jaar parce que. Euh, opposition aussi ñoom it loolu la ñuy def ñoom it dañuy seet ñun fan la ñu mën a jaar fan la gën a mën a safee fan la gën a méttee fan lañ gën a mën a convaincre les populations ñun tamit aussi dañ koy def c'est normal parce que il faut sa défendre ak yooyu mais am na ci loo xam ne man pour man salte na salte boo xam ne mbir mu mel nii euh, du opposition du ci loolu lay euh, pouvoir du ci loolu lay jéem a sukkandiku pour euh, abattre un, un adversaire euh, politique man yaakaaruma ko te aussi bu amoon it duma ma ko rafetlu. léegi léegi audio bi ñu dégg yow déglu nga ko bu Mamour Diallo. waaw xam nga man yooyu vraiment bëgguma ko sax déglu. dégg naa rek ñu koy wax di ko commentaire mais honnêtement dégluwuma ko parce que pour man amuluma njariñ te amul importance tey euh, li li am solo mooy euh, nee nañ justice def yoonam tey vérité bi éclaté dafa am solo ci ñëpp am na solo ci Ousmane Sonko am na solo ci Adji Sarr am na solo ci sénégalais yi parce que affaire bi yegg na foo xam ne tey justice dafa war a def yoonam wala def liggéeyam ak yooyu. donc kon nenu nenu bàyyi wax ji te bañ ko di amplifier ñu bàyyi justice def yoonam su soo ko amee dëgg mais moo am dëgg soo Adji Sarr amee dëgg aussi ñu jox ko dëgg su fekkee dossier bi aussi dañ ko war a classé aussi ñu classé ko d'accord mais yow euh, Amath Suzanne Camara sa gis-gis mooy mbir mi joxoo ko benn importance bi waaye dañuy gis ne ci euh, mouvance présidentielle bëri na si ñoo xam ne bëgguñoo bàyyi dossier bi ndax dañoo jàpp ne lu luñ ci gën a wax gën a diaboliser Ousmane ko gën a yàq deram waa non c'est vrai loolu aussi stratégie boobu aussi am na mais am na nu ñuy defee aussi dañuy may Ousmane Sonko buzz parce que aussi sénégalais yi aussi am na loo xam ne bugguñ ko maanaam bu ñu gisee ne nit ki ñu ngi koy néewal doole ñu ngi koy taqal ci loo xam ne amul ñu ngi koy jiiñ ci loo xam ne amul parce que rek parce que loolu tamit mën na euh, effet contraire bi mën na am maanaam que mu nekk ay gain politique ci Ousmane sonk kon affaire bi aussi nañ ci def ndànk mën na ko am mën na ko effectivement yàqal ci si trajectoire politique am mais aussi mën na am lu mu defar ci trajectoire trajectoire politique ah, mais euh, lu tax sànq nga ne bataille euh, d'opinion bi Ousmane Sonko presque gagné na ko. waaw mooy xam nga sànq mooy comme li ma wax rek d'abord moom moo njëkk a wax di wax ba pare aussi euh, comme li ma la wax rek opposition ñu victimiser wu dafa yomb par exemple tey bi ñu ja jàppee ay ñu bokk ci pouvoir bi ci passeport diplomatique mais ñëpp applaudir ñëpp ci kontaan mm-hmm. wala boog kenn gisoo kenn ku ne non non non ah, waruñ leen woon jàpp est-ce que ñoo ko def wala lii wala la parce que pouvoir lañ nekk hmm. mais opposition. boo leen laalee boo leen laalee rek ñu ne déedéet Macky Sall jàpp na fi Khalifa Sall jàpp na fi Karim donc dafa bëgg jàpp Ousmane Sonko dafa bëgg jàpp keneen dafa bëgg réduire l'opposition à sa plus simple expression te jàpp naa ne opposition baax na ci réew. Hmm. oui opposition baax na ci réew sinon. gis nga tey bu fekkoon comme ni ñu ko waxee nii jàpp na xalifa Sall bokkatul jàpp na Karim bokkatul jàpp na soo ko bokkatul mais population yi seen bopp ñooy jóg songu Macky Sall te boobaa lay gën a metti mais kon yow bëgg nga euh, opposant yu radical non waxuma oppos opposant yu radical comme ni nga radicalé woon rek <laughs> Abdou Khadre mais yow li nga fii ba léegi kenn waxu ko fi président <laughs> waaw waaw Abdoulaye sama maam la xam nga moo tax. amoon naa sañ-sañ wax ko lu ma neex. waaw Abdoulaye sama maam la te maa ngi koy maa ngi koy nuyuwaale su fekkee mu ngi may dégg wala ay ay nitam. di ko ñaanal fan bu gudd kontaan lool li ko président Macky Sall tuddee stade bi waaw vraiment loolu rafetlu naa ko ndax tey euh, Macky Sall tey lépp lu mu am ci politique rek euh, yàlla ci loxo Abdoulaye Wade daana la ko jaarale donc Abdoulaye Wade bu amoon xolu añaan donc am na loo xam ne dina ko bëgg defal Macky Sall mais kon du ko defal. ak yooyu donc loolu vraiment euh, seen ànd. wala book ñu juboo li mun Mountakha fexe ba réussir loolu damay ñaan yàlla mu continuer euh, mën na nag euh, continuer ëpp PDS mën na continuer nekk dans position APR continuer gouverner mais diggante humainement Abdoulaye Wade ak. Euh, njabootam ak Macky ak Macky man bëgg naa mu. mu ratax mais yow bëgg nga opposition boo xam ne tey bu bu kii lay doon. waaw waaw non xam nga opposition man dama jàpp ne euh, rôle am la war a def euh, radical aussi bon peut-être le mot est trop fort mais nanu opposé wu te xam nga tey. Euh, euh, gis nañ fi euh, léegi rek ci journal bi ñu ngi gis koo xam ne PDS la bokkoon dem na APR. donc kon yow loo da xalaat sa ëllëg suba tey bon c'est vrai que tey gis nañ fi bon bugguma joxe exemple Idrissa Seck Idrissa Seck bi mu nekkaat bi ñun ak moom ñoo ànd nekkoon dans l'opposition après ñu gagné ak commencé exercer pouvoir. mais après un certain moment dafa dem dans l'opposition amul lu mu fi waxul Macky Sall ñun tamit aussi amul lu ñu ko waxul mais gis nga tey après delluwaat na ñëwaat ci ñun ànd ak ñun kon nañuy sóoraale ëllëg ànd bi ndax tey jii loo luñ mënti wax Ousmane Sonko wala Ousmane Sonko lu ñu mënti waxit dina am ñoo xam ne dinañ jóge APR dem ci moom wala boog ëllëg euh, vice versa comprendre nga donc kon dañ ko war a rafetal wala éviter yenn mots yi mais noo gisee moom ni muy opposé bon c'est son style waaw parce que Ousmane ko tey jii euh, euh, moom jàpp na ne tey c'est le seul leader de l'opposition wala boog fi mu toll ci opposition tey kenn toll fi wala chance yi mu am keneen amu ko parce que Khalifa bokkul te mu ngi ci opposition bi Karim bokkul mu ngi ci opposition te ñeneen ñi moom moo leen ëpp aura loolu yàlla moo koy def alors donc de ce fait kon moom dafay jàpp ne tant que mu ngi gën a radical tant que mu ngi gën a euh, contre Macky Sall ak yooyu donc euh, ay points dafay dafay yokk te xam nga aussi askan bi ñoom ku leen défendre lañ bëgg c'est ça la vérité parce que askan bi aussi dañu sonn. dañu sonn oui dañu sonn ba pare te askan bi aussi dañu bëgg ku leen jàppale. Mm-hmm. Euh, parce que dund baa ngi nii. waaw metti na pouvoir d'achat bi aussi des na. maanaam bari yokk waaw xam nga kon. Euh, c' est vrai loolu bu la neexee après ñu dellu si waat. président mag Sall am na jéego yu mu ci yu mu ci def. dinañ ci dellu si mais xam nga tey boo xoolee tey par rapport ak euh, travailleur bi liggéey kat bi euh, li muy gañee ak bu waree dund ak njabootam war a fay courant fay ndox lekk ak naan mais koo xam ne aussi amul liggéey am am am war a toll ci liggéey am am njaboot am ay parents war leen jàppale kooku aussi metti na ci moom. alors donc kon su gisee tey ku koy défendre mais kooku il faut mu mu bàyyi ko xel c'est ça la vérité. contrairement à koo xam ne nekk nekk na ci pouvoir di défendre li président Macky Sall di def donc euh, gis-gis gi du nekk benn. d'accord mais dama mës a dégg euh, yow nga waxoon ne euh, Ousmane Sonko remplacer Macky Sall baaxul ci Macky baaxul ci yéen ñu ànd ak Macky lu taxoon nga wax loolu. waaw d'abord. Euh... man gëm naa ne sax loolu mënul nekk wala yàlla du ko def yàlla du ko dogal parce que politiquement moo tax may wax loolu mais ci baatin yàlla mooy joxe nguur man d'accord naa loolu yàlla bu ne Ousmane Sonko mooy remplacer Macky kenn munu ci dara man mënuma ci dara yow mënuma ci dara mais euh, logique politique li ma gis sama xalaat mooy que ne euh, euh, Ousmane Sonko du moom mooy remplacer Macky Sall te it du intérêt Macky Sall ak ñi mu àndal que Ousmane Sonko succéder au président de la République Macky Sall. lu tax d'abord. Euh, Ousmane Sonko amul xam-xam am xam-xam bi war bi mu war a téye réew mi te Macky bu ñu waxantee dëgg it loo ko bañ-bañ am na fu ko yóbbu réew mi am na fu ko Ablaye Wade jëlee ci PS yóbbu ko fu sori mais Macky Sall aussi def na le double wala le triple alors donc kon ku am xam-xam ku bëgg Sénégal euh, ku am ay relation moo war a wutu Macky def yóbbu ko fu gën a sori te loolu man gisuma ci Ousmane sonk te Ousmane Sonko dafay fayantu man dama gis ne tey bu remplacé woon Macky Sall moom dina fayantu ak yooyu te it te yaakaar naa ne aussi te loolu waru ko man li ma gëm mooy yaakaar naa ne avec l'euphorie aussi de la victoire xelam dina dina dellu si mais nag ci discours am wax na ko ne tey vous allez rendre des comptes am nañu ma lim bëgguma leen lim. Ah, mais est-ce que dañ koo ñemewut. <laughs> non man de. man de honnêtement man ragaluma Ousmane Sonko man de gëm naa ne politiquement Ousmane Sonko. waaw ah, ndax yow dénkuñu la alalu réew mi joo joo détourné dénkuñu lay milliards. Euh, waaw ba tey waaw ba tey mais mais tey euh, képp ku ñu dénk bu dul Ousmane Sonko sax war nga ragal suñu borom. war nga ragal sénégalais yi la dénk. parce que sénégalais yi ñoo la dénk seen alal ne ne liggéeyal ma nga teg ko ci yoon jubalal. alors donc kon ñu ra ñooñu la ñu war a njëkk a njëkk ragal avant ñuy ragal un adversaire politique ne bu jëlee pouvoir li am solo mooy euh, man euh, ñun euh, ñun suñu nguur moo créé Ousmane Sonko. mais yéen moom ku ne jël ko ku ne remplacer Macky moo leen gënal ko Ousmane Sonko. non man bu ñun bu ñu defee li ñu war a def nguur gi même Macky Sall bu fekkee nekkul candidat 2024 kenn sunu biir mën na ñëw ñu def ko candidat mu gañe mais li ma waxoon aussi mooy suñu bàyyee situation bi nii actuellement quelque que soit a li li nar a am 2024 mooy Ousmane Sonko mooy jël deuxième man du ma yàlla de mais la lecture politique laay def ah. su nii nii à l'état actuel Khalifa Sall bokkul Karim Wade bokkul ñu dem élection 2024 Ousmane Sonko mooy jël Macky Sall ñun ñu def ko suñu candidat Ousmane Sonko mooy jël deuxième. te mën naa dem deuxième tour. ah déglu ma rek te Ousmane Sonko bu demee deuxième tour ak Macky Sall dafay gagné Macky Sall dégg nga wax ji. ah bon ah bu demee deuxième tour ak Macky Sall Macky amul 50 pour cent. Ah, moom mu am ah, moom mu mieux placé dans l' opposition mais Sénégal loolu lañ xam. Euh, euh le, le le candidat du pouvoir perd au deuxième tour. lu tax nga ne à l'état actuel lan nga gis ci gouvernement ba nga ne à l'état actuel. léegi nag dama ne ensuite ma yeggali. léegi nag su fekkee euh, deuxième tour amul aussi maanaam Macky Sall gagné avec plus de cinquante pour cent Ousmane Sonko day contester résultat yooyu. te day wàcc si tali bi. wàcc si mbedd bi day wàcc si mbedd bi. te bu wàccee si mbedd bi ni am na ñoo xam dañ koy topp ci mbedd mi le pays sera ingouvernable ñu nekk ci ci yeneen ay problèmes yu dul jeex xoola mandat boobu yëpp ci ay problème lay jeex parce que day contester ba tëdd ci naaj bi <laughs> te xoolal continuer. te day day contesté rek ba mu ba ba muy jot ci nguur gi. loolu baaxul ci réew wala dëkk bi euh, dugg ci kaw. non mais mais c'est ça loolu baaxul ci réew. lan mooy lan mooy solution ak lan nga ne à l'état actuel. la lan mooy solution bi. mooy bàyyi xalifa sàll bu bokk bàyyi Karim Wade mu bokk. humainement loolu moo loolu dafa baax ba pare politiquement aussi loolu daf ñuy arranger. alors donc loolu mooy solution bi léegi nag bu ko defee euh, man li ma gëm mooy Macky Sall. nekk suñu candidat wala bañ a nekk suñu candidat Ousmane Sonko du jël deuxième. léegi tey par exemple tey bu doon président Macky Sall euh, nekkul candidat yéen benn am ngeen benn candidat. Karim bokk. xalifa bokk. Mhm. Sonko bokk. kan nga jàpp ne moom mooy raw boobaa. boobaa man gëm naa ne ñun suñu candidat mooy mooy mooy raw. mooy jiitu mooy nekk deuxième. deuxième ça va entre Khalifa ak ak Karim man loolu laa gëm. kon da nga Sonko dayo bi mu am ci wàllum politique. ñàkk bokk Karim Wade ak Khalifa Sall moo ko waral. c'est exactement ça la euh, la nature a horreur du vide loolu la tubaab di wax fu dara newul jeex na. mais Ousmane sonk su fekk par exemple euh, présidentielle yi paase rek li mu doon cinq candidats moo tax Ousmane Sonko am 15 pour cent bu candidats yi nekkoon 10 pour cent ñu bàyyi euh, Pape Diop mu bokk ñu bàyyi Gakou mu bokk ñu bàyyi Aïda Mbodj mu bokk wala keneen ak keneen xoolal Ousmane Sonko du am 15 pour cent. 10 pour cent sax du ko am. waaw mais xam nga tey vide bi euh, bi ngay wax nii Karim bokkul lu yàgg ay élection ak euh, kalifa Sall. Mhm. est-ce que diggante bi. Mhm. Ousmane Sonko communiqué woo fii defu fi ay jéego. ba convaincre maximum de Sénégalais. tout à fait loolu tamit li nga wax aussi dëgg la loolu tamit mën na nekk ah li nga wax aussi mën na nekk mais xam nga man actuellement laay wax la situation actuelle mais la situation peut évoluer. mais yéen yéen a créé Ousmane ah. mais effectivement sunu sunu nguur moo créé Ousmane Sonko. kenn waru ko woon dàq lu tax ñu koy dàq nañ ko bàyyi mu wax bu waxee ñu tontu ko làmmiñ dafa mën a lekk morom mais ñu dàq ko mu am encore plus la sympathie des gens mais Ousmane Sonko bi mu fi demee législative lu mu am foo reste la jàlle mënul sax am dix mille voix c'est ça la vérité alors léegi ba pare aussi voilà léegi nag ñun ñu war ko créer ba pare lui offrir le pouvoir pour pourquoi au nom de quoi ñun suñu pouvoir bi dañ ko ñefe oui Macky Sall dafa wàcc si mbedd mi dafa wàcc si dem ci localité yi def tout tous les départements du Sénégal. Ouais, les communes. mais est-ce que Macky am na entourage bu dëgër bu baax boo xam ne tey ma ngi koy wax luy njëriñu réew mi ak luy njëriñam politiquement. waaw loolu tamit euh, c'est vrai loolu tamit am na lu ciy sooxe ndax le président Macky la man xam naa ne ku bëgg réew mi la ku bëgg Sénégal la te ku am compétence la pour yor réew mi man xam naa loolu su su doon leneen ma wax ko mais. ci ñi koy xelal wala ci ñi ko jege am na ñoo xam ne seen bopp moo leen fa tax toog wala seen bopp ko mel bon bugguma di lim. non bu njëkk moom dang daa wax. Euh, mu demee waaw waaw mais moom moom xam na moom xam na. te local yi ñu jëm defe naa euh, législative élection législative yi ñu jëm defe naa dina ko dina ko gérer boppam waaw. Euh, waxuma ne du déglu ma Samba wala ma Demba mais dina xool li dal xelam mu def. dafa amoon ay lobby ci local. mais c'est la vérité am na ñoo xam ne ñoo nekkoon ci wetam. waaye seen ay nit lañ doon ñoo ñu leer ne seen nit ñi bu ñu leen euh, bu ñu leen euh, sampe du ñu gañe mais et pourtant loolu lañ fexe ba président def. ay lobby la ci palais bi. mais bien sûr c'est c'est au niveau de la présidence de la république oui ñu ko jege. mais damay faral di dégg euh, mbirum. loolu baaxul lobby yi may faral di dégg dañuy faral ñenn ñi dañuy faral di tudd Mahmoud Saleh yoon ndax bokk nga ñi tudd Mahmoud Saleh. ah tuddoon naa ko fi de mais xam nga comme man su ma tuddee rek bon ñu wax ma ne ma ah bàyyi li ngay def. ku lay li nga def. waaw mais xam nga li ngay wax amoo ci firnde. non non non cest xam nga dañuy ne dañ may wax souvent bul attaquer ñi nga bokkal parti bien que boo gisee ñuy def loo xam ne nag sudul noonu mais boo amul foo ko waxee mais ci biti rek nga ko mën a waxee. ah kon yow danga nga yow amaat di nga gis ñoo xam ne dañuy doxalee naka sudul noonu nga nga bëgg koo euh, teg sa tànk. no no cest à xam nga bon du waxuma teg si sama tànk mais da moom xam nga wax naa la ko léegi li ma wax leer na par exemple tey. man ma wax ko ci mbedd ci biti loolu la ñuy bañ ma wax ko ci biti maanaam naa ko wax ci biir mais ci biir it day fekk les instances régulières di di réunir nga mën ko fa wax te te loolu aussi li ñuy wax nii président moo ñu gën a xam c'est vrai que c'est c'est difficile man de des fois président dama koy yërëm xam na ne am na ñoo xam ne ñu ngi ko jege di ko yàqal xamul xamul nu mu leen di def. te xam na leen. bañ a xam moo la ko gën a xam moo ma ko gën a xam mais que mais est-ce que. te am na si ñoo xam ne aussi day jël ay mesures contre ñoom am na si ñoo xam ne dañuy ñëw taxaw mu ne leen lii duma ko def ñu ne ñu ñu xataraayu seen kanam ne damay démissionné mu ne ko démissionnel te xoolal nit ko ko di ko wax démission damay démissionné mu ne ko démissionnel xoolal du tax mu démissionné day jaaraat ci ginnaaw euh, dellu si waat euh, euh, c'est malheureux. lan moo la naqari si entourage Macky Sall bi. mu assainir ko. mu xool ñi ko bëgg ñi koy ñi koy ñi koy ñu ñi koy liggéeyal ñi xa yàlla rek a tax xooluñ seen intérêt xooluñ intérêt keneen moom intérêt am njëriñam la ñu xool ñooñu mu leen di déglu wala mu leen di bàyyi xel te ña ña ña ko gëmoon démb ñu ngi fi ba tey bëgg ko fonk ko mu jàppale leen mu dooleel leen mais am na si ñoo xam ne président jox na leen ay responsabilité jox leen ay moyens mais dimbalewuñ kenn faalewuñ kenn toppatowuñ kenn militants yi ils sont laissés à eux-mêmes te loolu baaxul ay frustration lay yokk non seulement lam leen dénk amuñ compétence ba ca war par exemple nga nekk directeur général mënoo doxal euh, euh, lañ la dénk ñu nga nekk ministre mënoo doxal lañ la dénk mais as la nga am mais bokk ak euh, militants yi jàppale ci militants yi mais déedéet ay woykat ñu lay way wala ay mbër wala ay ñoo xam ne euh, euh, euh, voilà kenn xamu leen ci APR parce que ay star lañ ay VIP lañ ngay jël ay xaalis lu bari di leen ko jox te bàyyi militant APR yi lu tax au nom quoi oui. mais lu jëm ci wàllum considération aussi dañuy jàpp ne président Macky Sall ñi mu jox considération daal mooy ñi nga xam ne ñooy transhumants yi. bon loolu tamit on l'a remarqué euh, que euh, tey ñoo xam ne ñoo nekkoon fële di ko saaga di ko xas tey ñoo nekk ci wetam wala mu jox leen ay responsabilités bon man bañuma koo xam ne feneen la nekkoon ñëw jàppale président Macky Sall mais day fekk mu nekk gëm-gëm maanaam gis na ne président Macky Sall mu ngi liggéey mu ñëw pour jàppale ko ci loolu mais tamit comme ni ma ko waxee sànq ñoo xam ne ñu ngi fi nekkoon àndoon ak moom démb am na ñoo xam ne ils sont ndax bu ñu loon dara duñ fexe ba mu egsi au pouvoir donc léegi ñu fexe nag ba accès indi ko ci au pouvoir léegi ñooñu bugg leen xeeb indi ñeneen loolu mënul nekk. waaw man nag damaa jàpp ne ñi transhumé ñëpp ñu jox leen ay responsabilité gisuma si ñoom ne réew mee tax ñu fekk si Macky Sall mais ay poste lañ négocié man loolu laa jàpp. ah loolu aussi kenn mënu ko dindi kenn mënu ko weddi li nga wax kenn mënu ko weddi ñu si ëpp lool loolu la c'est pour des prébendes. mais est-ce que président li ko sonal du ay nitu démbam ñi nga xam ne amuñu accès si moom. mais bien suir mais bien suir Macky Sall c'est vrai nit du mat mais Macky Sall euh, li ko euh, loolu rek mooy catam loolu kese mais nag nit du mat mais man dama ne aussi président mënul nekk fépp man xam naa ne am na yéene ci ñi mu àndaloon mais ñamu dénk ñeneen ñi mu dénk aussi nen nen nen ko nen nen ko jàppale ci ay nitam. mais gis nga loolu Ablaye Wade nag loolu moo doon foram Ablaye Wade moom nitu démbam moom doo gisee moom tey boo gisee moom benn yoon soxlaatoo ko gisaat parce que réglé na sa problème pour abadan loolu la moo baax. léegi euh, euh, euh, kii waaw continuer sa question léegi biir Benno Bokk Yaakaar. Euh, ñu bari dañuy wax ne non seulement am na frustration waaye am na ay këréel maanaam ay xeexante seen biir ay yàqalante seen biir aussi. Euh, ñun be si biir bennoo bi. waaw mais loolu aussi bon du yà dool du loolu du ñàkk c'est vrai que yaa yaa euh, ay ambition mooy tax c'est vrai bu ma bëggee keneen bëgg keneen bëgg donc voilà mën nañ xeex suñu biir waaw mais na nekk de façon saine. ak yooyu parce que man su ma bëggee dara yow it nga bëgg dara donc c'est la compétition dafa mel ni ñu nekk classe ku nekk day kii day bëgg jël paie kii ñu bëgg jël et cetera donc ñun tamit bu ñu demee euh, euh, foofu euh, su sunu biir aussi c'est normal mais aussi warul warul warul warul nekk ay animosité dafa war a nekk rek adversité mais aussi ñu fexe ba bu mu ñu yàqal aussi en face parce que en face ñun dañu war a fexe nu ñu nekkee benn en face on fait face à l'opposition par exemple comme tey législative yi man li ma jàpp mooy képp ku président tànn ci localité ñun dañ ko war a ñépp ko war a jàppale président it na fexe bu mu juum yàlla rek moo dul juum mais na fexe aussi moom it xool euh, ña mérité ñu investir leen ñu investir leen ña nga xam ne ñoo ëpp doole ña nga xam ne ñoo gën a mën a taxawal parti bi mu investir leen te bu leen investir aussi ne ko ñëpp jàppale te man gëm naa ne bu ñu àndee ñun ñëpp waxuma dinañ gagné tous les départements les 46 mais département yi ñuy échappé du bari. mais ak jamono jii nga xam ne dund gi dafa dafa yokk location bi cher. Mhm. waaw effectivement euh, nguur moom pouvoir surtout pouvoir en Afrique moom premier adversaire mooy la demande sociale te demande sociale bi moom instant bi. saf na lool tar na ci ñun le président Macky Sall nag c'est vrai mu ngi def ay jéego alalu réew mi mu ngi fexe ñu ciy construire ay infrastructure mu ngi fexe aussi euh, malgré euh, euh, euh, kii le contexte international. crise mondiale bi mondiale bi moom mu ngi fexe am na lu mu jot a wàññi ci ci prix yi mais aussi bu ñu fàtte ne commerçant yi aussi ñoom tamit nen si jouer seen seen rôle commerçant yi ñu ñoo bañ. mais nee nañ commerçant yi ñoom nee nañ mënuñu di jënd di jaay di perte ndax dafa am loi sax bu koy tere. waaw loolu. <laughs> xam am na xam nga borom boutique bi. Euh, amaat borom boutique bi. waaw borom boutique bi moom grossiste bi moo koy jaay. borom boutique bi nag bu dee dafa jënd lu cher si grossiste bi nag wax dëgg yàlla mënu koo yombal. waaw waaw loolu xam nga xam nga euh, li nga wax reetaan la mais dëgg la mm-hmm. aussi. parce que man mënuma jënde cent francs pour jaay pour am ci bénéfice lu ma yóbbu sama njaboot ba pare di jaay moins que alors foog ma am ci dara alors mais tamit man gëm naa ne euh, commerçant yi aussi euh, bu ñu waxtaanee rek ñu ni neen ñoom euh, nguur gi mënu leen wax wàññi naa wàññi leen ba pare ñu ñu ñu duñ ci gis seen bopp loolu munul nekk. waaw mais yéen seen pouvoir bi parfois yéen da ngeen di jël mbir. jaxa bëgg a jaxase ñooñu. ak askan bi maanaam bëgg jël commerçant yi boutiquiers yi. jaxase leen ak askan bi léeg-léeg tamit jàngalekat yi bu ñu grévé ngeen bëgg a jaxase jàngalekat yi ak askan bi naan jàngalekat yi war nañoo jàngale ji parfois tamit ngeen jaxase bailleurs yi ak locataires yi mun leen bàyyi loolu ah. waa loolu tamit c'est vrai que euh, affaire bi moom euh, li nga wax su fekkee noonu lay demee ah, aussi du yoon non non li nga wax dëgg la parce que ku ci nekk da ngay euh, xool sa waaw def sa communication c'est la bataille de l'opinion ak yooyu mais ci wàllu location bi aussi je pense que aussi euh, c'est vrai que président xaw na def benn aveu euh, ak yooyu mais warul bàyyi. aveu aveu aveu. waaw aveu lan. waaw euh, <laughs> non non non non d'échec ci occasion bi. waaw xam nga mais foofu aussi euh, man bëgg naa président ak nguuram foofu tamit ñoom it ñu gën fa gën a taxawaat parce que bàyyi bailleurs yi rek ak locataires yi du solution te moom mënul fexe ba ñëpp am kër bu ñu moomal seen bopp. waa donc ala kulli ali dina am ñu continuer du louer te te bailleurs yi aussi euh, euh, d'accord naa dañu leb banque waaye tamit ñoom it euh, nañ revenir à la raison waaw du yoon que par exemple yenn kër yi wala yenn zones yi d'accord nañ ne yenn zones yi ak yenn kër yi li investissement yi ngi ci def prix yi mënul nekk benn mais tamit nañ ci nañ ci xool suñu borom bi waaw ñii louer seen kër yi nañ si xool suñu borom bi mais yor yor kër rek dootoo xëy dootoo gont sa kër si moom ngay dundee loolu mënul nekk. moo amee euh, état bi tamit lu ci mën di am euh, gis nañ ñaan ak président Macky Sall luxe bi ñuy dund ñoom dafa mel ni moom maanaam coronavirus sax jaarul ci réew mi. Euh, dafa mel ni tamit crise mondiale amul ci réew mi tey la ñi ànd ak président Macky Sall mën a am kër si lañ gën a mën a am ay oto ay parking mm. seen dund daal dafa gën a ñoŋ. Mm. ñoom tim seen train de vie dañ ko waroon a wàññi. waaw man moom xam naa ne ñooñu mbokk ma ci bien que président Macky Sall laa àndal xëy na nag li ma yorul ndomba tànk wala liñ ma dénkul moo tax mais tamit euh, gëm naa ne. yow moom euh, mérité woon nga. waay euh, ndomba tànk. yow ak Youssou Touré ak ñeneen ak ñeneen ndax li jëm. ci sincérité diggante nit ak nit. Mm-hmm. xeexal ko ba mu jot ci bëgg-bëggam. Mm-hmm. def ngeen ci seen kem kàttan. waaw loolu moom dëgg la moom waaw loolu aussi maa ngi la ciy sant di la gërëm. amee ah, loolu mooy réalité waaw waaw da nga da baax rek moo tax nga wax loolu mais c'est la vérité. Euh, biñ bañ koy def nag aussi di jàppale président Macky Sall man séntuwuma ci woon euh, euh, lu ne gàññi c'est vrai nag jàpp naa ne am naa ay compétences te mën naa sonal président mën naa sonn ndax président ba léegi. Hmm. mën naa ko jëriñ très bien mën naa ko doxal ay mission yoo xam ne dina ci gis njëriñ. donc kon bu ma dénkee bu ma wóoloo dénk ma aussi man dinaa ko rafetlu te. Euh, te dinaa ko xaar aussi. même moom ma ubbiloon buntam nga si accès mën nga di koy wax réellement sur le terrain li xew. tout à fait loolu tamit am na euh, c'est vrai que euh, jafewul jafewu jafewuma trop pour ma dem wax ak moom mais xam nga aussi kilifa la te ñëpp la fi nekkal du saa yu la neexee rek ngay dem fëgg buntam ak yooyu pour toog ak moom. xëy na bu ma ko jege woon it mu tabb ma foo xam ne dinaa ko mën di wax li am moom gëm naa ne li muy juum du bari parce que man li ma gëm laa koy wax te moom xam na loolu saa yu ma jàkkaarloog moom des fois sax les gens me ne ma mais da war a xam ne kii président de la république la am na loo xam ne waroo ko wax rek moom wala nii ma ne la non ma ne leen dafa war a xam dëgg ki li nekk parce que moom fi mu nekk dafa kawe ñun ñoo nekk ak askan bi. ñun ñoo nekk population bi. donc dañ ko war a wax la vérité. mais mais dëkk bi métti na mais ay nitam ñoo ngi dund luxe. waaw foofu aussi euh, man ya ja euh, euh, ñàkkul nag am na ñoo xam ne ñu ngi ci luxe di gun di naat mais la amoon ca temps Abdoulaye Wade ak nguuram wàññeeku na te kum ci kum ci kum ci xam ne yaa ngi gundaandaan bañ a lijjanti askan bi dana defanteeg yow loolu moom xam naa ko kum ci xam ne yow yaa ngi ci naka sudul noonu parce que moom man de li ma li ma xam rek laay wax de moom moom président dundul pouvoir moom dundul luxe boobu moom ak njabootam muy Marème fay jabaram muy ak ay doomam ñoom dunduñ loolu yàlla rek moo tax may wax mais nag am na ci ñoo xam ne moo leen dénk moo leen jox ñoom ñu ngi gundaandaat. d'accord léegi dañu gis président sa Seck mu mel ne ànd bi mu ànd ak président Macky njariñ li bëriwul ndax élection yi passé dañ ko dóor ba mu tëdd fi nga xam ne tey euh, moom mooy ci diwaanu cees te ba léegi Idi joxewul ay explication ci ci défaite boobu élection locale yi tamit campagne bi gis nañ ne Idrissa Seck yëkkatiwuloon benn tànkam pour jàppale Benno Bokk Yaakaar. effectivement yow wax nga ko ba pare génne sa question génn nga ci élément de réponse effectivement euh, il n'a pas mouillé le maillot à Thiès mais dama yaakaar ne xëy na moom moo ko tey moo tax parce que jàpp na ne élection locale la euh, am na am na ñu ñu ñu responsabiliser y compris ñoo xam ne ci euh, ngu euh, ci ci partem la ñu bokk donc ñooñu nen futteeku waaw mais mais nañ futteeku mais président Macky Sall sax dem na ba Fatick waxtaan ak waa Fatick pourquoi pas Idriss Seck. waaw waaw xëy na peut-être aussi am na lu ko gàllankooroon parce que xam nga avant élection locale yi un peu avant feebaroon na fi ak yooyu mais euh, mais avant locale yi tuuti tane woon na xëy na bon doo xam lan la mais euh, mais gëm naa ne ci législative yi ñu jëm gis naa ko vraiment active yu mu commencé poser wane na ne il va prendre les choses en main. Mm-hmm. maanaam la mu daan def cees dana ko def man gis naa loolu. te bu ko defee man gëm naa ne. Euh, léegi euh, est-ce que euh, est-ce que Aminata Touré mi ñu dénk wàllum parrainage bi est-ce que yow d'accord nga ci. waaw Aminata Touré d'abord sama sœur la sama jigéen la yàlla moo def mu bëggal ma boppam man tamit vraiment ma koy rentre bi ñu xamante ci parti bi ba léegi vraiment sama sœur la mu mel na ku ma bokkal ndey ak baay defaluma dara nag musul yëkkati xaalis may ma musul yaakaaruma ne aussi mës na dem ci président ne ko ah. falal amaat su ko defee it ma gërëm ko ci xaalis sax bu ma ko mayoon it ma jël donc gisuma daal man lu ma defal. lu ma apporté lu ma apporté maanaam lu ma defal ba ma war ko waxal lu baax mais lu baax laa xam ci moom parce que nit ki du mu yëkkati xaalis rek jox la. mais est-ce soxotante moo am ci biir biir APR. Ah, non dinaa ñëw si sa question bi sa question bi dafa am solo alors euh, donc euh, moom gis naa ci moom ay compétences vraiment mën na liggéey. bu yàlla yàlla rek moo tax may wax am na am na am na am na intelligence politique ba pare ci liñ koy dénk maanaam mu nekkoon euh, euh, maanaam mu nekk ministre mu nekk président euh, conseil économique social mu nekk premier ministre am na xarañ bi te jigéen bu mën góor la am na ful la am na fayda alors parrainage bi aussi dañ ko ko dénkoon 2017 mu def mu def ci liggéey bu am solo alors donc deux 2019 waaw effectivement 2019 dañ ko ko dénkoon mu def ci liggéey bu am solo mook yeneen moom moom moom mook ñëpp parce que tey ka dem euh, parcelle Assainies wala ka dem Koungheul wala ka dem Saint-Louis di dajale ay parrainage pour le président Macky Sall ñëw jox ko ko mais kooku tamit gàcce ngalaama mais c'est une équipe moom la ñu nommé il faut ñu am kuñu nome mais am na ñu mu àndal ci liggéey bi ñoo xam ne ñooy saytu parrainage bi. maanaam tey man su ma dajalee Koungheul du ma dajale rek indi rek ñu ne ma waaw gonga parcelle mille euh, cinq 500 parrainage 1000 parrainage déedéet dañ koy xool ndax yow li nga indi baax na wala baaxul. d'accord mais biir APR euh, ndax amul ñoo xam ne tey euh, du ñu dem di del mukk ñi nga xam ne tey ay militants première heure lañ ci kanamu njiitu réew mi. ah c'est dommage loolu APR rek la am PDS lu ñu xeexaan xeex seen biir. Euh, euh, euh, militant bu am soxla léegi léegi am na bunt xam nga bunt booy fëgg te boo fa demee sa problème réglé mm-hmm. mais APR loolu amul da ngay am sa soxla bu ne ñor léegi xoola du koo bunt boo fëgg du ubbeeku ba yow dootul jar sax nga fëgg bunt loolu moo am APR kenn du dimbale kenn kenn faalewul kenn loolu baaxul. donc tey euh, lii nii ñu am yàlla yàlla defal ñu ko mais euh, dañ euh, yow même bu dul nguur yow nga nekk sa biir kër dans un quartier boo amee mais danga war a dimbale ñi nga ñi nga dëkkal ñi nga nekkal ku am soxla bu ñëwee wax la ko mais mille francs nga am nga bo nga xolloo ci bokk ak moom nga yëkkati sa 200 francs jox ko wala 300 mu dem. kon ñoom jegewuñu askan bi. am nañu war APR de ñi APR ni ñu waroon jegee askan bi jegewuñ ko askan bi nit ñi war mais ndegam waa APR seen bopp ñoo sonn sàkkaatuma askan bi waa APR seen bopp ñoo njëkk a sonn. léegi de ñoom se waa APR bu ñu leen di dimbale mais ñoom it ñu dem dimbale ñi si des tey par exemple dama lay jox exemple euh, euh, kii Abdou su ma yëkkati woon tey léegi 10 000 francs may la ko ne la Abdou Khad ah def neen émission bi ba pare de booy ñibbi nga paas mais Abdou Khad 10 francs yooyu doo ci paas kese. dina am ku la koo romb ci fii nga bokkal sax service di nga am koo xam di nga yëkkati benn 1000 francs sax may ko ci. boo demee sa koñit di nga yëkkati benn 2000 francs joxe ko fa kon xaalis boobu tasaarewul tasaarowul. kooku it aussi mu dem ci am lu mu ci jënd commerçant bi aussi am bénéfice. ah nekk ak Macky Sall defuñu loolu la war a def. te defuñu defuñu ko. loolu la war a def te defuñu ko. amul kenn kooku si def. non si am na waa am na nag qui sont généreux mais bariwuñ. Euh, bon damay bañ lim limkat ñu ne ah nitu diw la. Amadou Ba ou Ablaye Diouf Sarr ou kan. Amadou Ba moom ku généreux la Amadou Ba ku généreux la Doudou Ka il est généreux Birame Faye lu mu am dina ko bokk ak nit. ñooñu de par exemple mën naa leen lim euh, pêle-mêle parce que aussi du lim koo xam ne aussi. Mahmoud Saleh. bon Mahmoud. Euh, Mahmoud benn défaut la am bi ma gis nit dina am jafe-jafe moom du may xaalis parce que trotskiste la genre boobu la mais dina la wan yoon pour nga sa problème la mais lobbying yi muy def. lan mooy defam lobby lobby maanaam day gis kenn léegi mu xam ne kii mën na jëriñ président mais bokkul ci schéma am mu yàqal ko wala tey yow. Euh, euh, nga nekk bokk ci schémaam ba mu fexe ba nga am dara bu ëllëgee xëy na am na situation politique wala am na loo ko def par inadvertance wala je sais même pas mu xëyaat di la xeexaat loolu baaxul. d'accord léegi benn prof ndollu rek réseau des enseignants lan la ci mu def ak lan moo la ci naqari. Euh, réseau des enseignants man dama jàpp ne Youssou Touré moo ko jiite te it Amath Suzanne Camara moo topp ci moom. man dama jàpp ne su président Macky Sall demee ba soxla réseau des enseignants war ko jox keneen euh, daf ñu dafa war a woo Youssou Touré daf ñu war a woo ñun ñëpp wala moo am ñu mu woo ci jàngalekat yi waxtaan ak ñoom ci loolu wala mu woo Youssou Touré ndey mbili gi waxtaan ci ak moom mais loolu amul kon duma ma jàpp euh, kon du keneen moo war a def loolu à sa place. kan nga jàpp ne moo ko def. bon waxoon naa ko fi ah que ne euh, Mahmoud Saleh moo nekk. ci loolu moo jiite woon loolu wax naa ko nag dama ba ma koy wax nag aussi dama ci am ay preuve yu ma leer léegi nag euh, président Macky Sall ñun Mahmoud Saleh Mor Ngom ak euh, Samba Ndiaye ak Demba Ndiaye lañ ci yemale ñun Macky Sall lañ fal Macky Sall lañ gëm Macky Sall lañ bëgg. léegi Mor ngoom ak Mahmoud Saleh dañuy defaral président wala dañ koy yàqal. Euh, Mor ngoom moom ak Mahmoud Saleh ñoo bokk mbuus. c'est ça la vérité Mor nag moom bëgguma wax ci moom parce que vraiment sama mag la mais dama moom dama koy ñaan moom tamit bu mu bokk ci ci ñiy yàqal Macky Sall Mahmoud sax warul bokk ci ñuy yàqal Macky Sall ñoom dañu war a defaral Macky te ils ont la chance d'avoir la confiance du président de la République parce que aussi euh, président dafa fonk dafa am kóllëre te lu mu bon bon aussi ñoom it liggéeyal nañ ko jàppale nañ ko ñu ngi fi nekkoon démb Mahmoud il est très fort en stratégie politique c'est ça loolu aussi c'est la vérité alors donc ay nitu démbam lañ tey ku tey par exemple ku mel na euh, euh, euh, Mahmoud Saleh ak Mor Ngom seen relation dafa yàgg du APR depuis Paris la depuis la France boobu du ñoon dara ma Mansour Faye bi ma lay wax ni Mansour fay le ministre Mansour Faye ba mu amee bac war a jàngi France ma ma Mor Ngom moo ko hébergé que ma la dëkkal te boobu Mor Ngom xamante na ak ak ak ak Mahmoud Saleh donc kon politique boolewuñu te man mii di la wax Amath Suzanne Camara ay doomu Mansour Faye man maa leen daan jàngal boobu Macky nekkul au pouvoir kon relation yooyu dafa am solo. man ni ma jàppee Mansour fay noonu laa jàppee Mor Ngom te it bu doon sama sago noonu laay jàppale jàppee Mahmoud Saleh Mahmoud sale jabaram xam na ma damay dem këram walla dama daan dem këram heure heure bu ma neex laay dem këram jabaram ku nekk ku baax jabaram ku baax la Mahmoud sale donc kon ñoom euh, euh, man ak ñoom warul am xaar ma yàlla ñoom ak ñeneen ñu bokkal APR warul am xaar yàlla ñoo àndoon démb ku mel na far Farba Ngom defalu ma ne defaru defalu ma gàññ mais ku baax la kuy dimbale euh, ku bokk APR la kuy dimbale nitu Macky Sall la ma wax la loolu man euh, Farba Ngom li ma bëgg mu defal ma yëpp defalu ma ko wala boog defalu ma dara mais gis naa muy def lu baax d'accord jërëjëf euh, Amath Suzanne Camara léegi Yewwi Askan Wi da da leen a xawoon a sonal ci local yi est-ce que dàqu leen mu am ci législative yi. waaw euh, c'est vrai li nga wax am na solo euh, Yewwi Askan bi boo xoolee ñoom ñoo ñëw en deuxième position am na sax ñu leen votel xamuñ leen ci yenn localité yi mais parce que Macky Sall lañu àndalul wala boog. Euh, euh, kafa Macky Sall teg lañ buggul mu jaral leen ñu dem woteel keneen bu ñu deful ndànk nag wax naa la ko sànq d'abord le président la demande sociale war na ci gën a taxaw mais tamit ay nitam mu gën leen toppatoo mu gën leen euh, la ca war mu war a def ba pare def ay investitures yu baax alors bu ñu ko deful li ñu daloon mën nañu dalaat te man gëm naa ne li ñu war a def ñun bu ñu ko defee nee naa ko sa wax naa ko sànq. Euh, Ziguinchor ak Mbacké rek laa yaakaar ne mën na jafe si ñun mais yeneen localité yëpp dakaar mën nañ ko récupérer waat avec Amadou Ba euh, ak ñu ñeneen ñëpp ak ñoom Diouf Sarr. mais Amadou Ba boo jiitalee. Amadou mais bu mais bien entendu dañuy jiital Amadou Ba. boo jiitalee Amadou Ba. tey ñi ànd ak Diouf Sarr. ñoom dañoo jàppoon ne. Amadou Ba mu <laughs> mu la mayo. waaw ñi ànd ak Moussa Sy aussi. loolu tamit problème la. c'est vrai mais xam nga tey euh, man dama jàpp ne euh, euh, am na localité yoo xam ne dañ ko perte ñañ waroon jiital jiitaluñu. lu tax nga ne Ziguinchor day jafe si yéen. non xam nga Ziguinchor xam nga vote bi dafa bëri facteur te Ousmane ko seen dañu jàpp ne ñoom seen doom la donc te c'est normal. man tey dafa mel ni Koungheul tey. non mais mais pouvoir daana fa ñeneen di ko di fa gagné. waaw loolu dëgg la mais dama lay wax ne xam nga wax naa la ne facteurs yi bëri na mais facteur boobu daf ci am solo tey par exemple man gëm naa ne Ziguinchor bu bu euh, euh, Doudou Ka ñëwee taxaw. Euh, Benoît ba Baldet ñëw taxaw Benoît Samb ñëw taxaw Robert Sagna ñëw taxaw ñeneen ak ñeneen ñoo ñëpp taxaw ñu ànd nekk benn gëm naa ne mën nañ gagné Sonko man gëm naa loolu. parce que bii yoon président moo soxla. waaw mais mais xam nga tey. mais mais 2019 président moo soxla woon te Sonko daf ko gagné woon de te boobu Sonko dooleem toolu toon fii. 2019 euh, euh, non 2019 mais xam nga euh, xam nga boobu aussi. Oh, waaw waaw Balde ak ñëpp a ngi ci waaw moom laa lay wax ne la dafa am loo xam ne dafa siy joué dafa am loo xam ne daf siy la le kii bi maanaam deret ji. ak yooyu te yooyu aussi duñ ko négliger xam nga man ñu perte Ziguinchor amul problème. xam nga tey aussi bu waxantee dëgg aussi ñun 46 départements yi mënuñ ko gagné. léegi Mbacké nag. Mbacké aussi euh, foofu dafa sensible foofu Abdoulaye Wade euh, dafa defoon liggéey bu am solo ak Mbacké Mbacké yi te Abdoulaye Wade ba pare euh, murid la di ko affirmer alors président nag mu fay def liggéey bu am solo ak yooyu. vraiment euh, mu ngi fay def liggéey bu am solo mais tamit ba tey des na alors boo xoolee gagné neen euh, commune Mbacké mais bi passé gagné wuñ département bi euh, 2017 ñun ñoo gagné département Mbacké 2012 aussi ñun ñoo gagné département Mbacké donc euh, néew ma dañ koy perte mais du yomb même yi ñu pertoon sax pour ñu récupérer waat ko du yomb mais dañuy futteeku rek ñefe rek mais gëm naa ne mën nañ ko gagné mais ñaar yooyu daal Mbacké Ziguinchor waxuma ne c'est perdu d'avance mais buñ ci góorgóorloo mën nañ ko gagner mais buñ ko perte it man gaw ma ne am euh, garaaw na mais yeneen yi waruñ ko perte amul beneen département Sénégal bu ñu war a perte ñun. d'accord léegi euh, beneen question lay ñëw ci euh, mbiru Sonko doo a ñëw ci beneen question ñu doog a tëj léegi yow yaa ngi xaar procès am ci ci mbiru Ousmane Sonko. waaw man de. sama avis personnel Amath Suzanne Camara mooy ñu jël dossier bi classé ko man Amath Suzanne Camara laa wax de bokkuma APR bokkuma Pastef euh, duma syndicaliste nit kese laa yàlla sàkk ma ma dëkk Koungheul am am en tant que Amath Suzanne Camara boobu ñu jël dossier bi classé ko parce que amul nu ñu benn njëriñ Ousmane Sonko euh, yegg na ci Adji Sarr yeggu ci ban njëriñ la amal Sénégal Adji Sarr euh, ba pare Adji Sarr di dox soxlaam. mën a génn te kenn du ko def dara kenn du ko saaga kenn du ko xas kenn du ko euh, menacer de mort man bu doon sama sagoon noonu lay demee. mu ñëwaat ci askan bi waaw. très ah. mu duggaat ci askan bi société ba pare euh, ña ña ña ña ña ña ca ña ca ñàkk seen bakkan euh, buñ ko mënee leeral ña leen faat ñu ñu leeral ko suñ ko mënul it ñu dàmp seen ay mbokk. Euh, waaw loolu daal moo moo si sama xalaat. d'accord léegi nag su fekkee nag dëkk bi dafa am yoon euh, nen nen ko def ci procès si jàmm ak salaam bu mu am fitna bu mu am dara. mais daal vraiment euh, amul sens. d'accord amul njëriñ léegi yow kuréel bi nga jiite nii mooy syndicat bi nga xam ne tey moom moo ëmb jàngalekat yi nekk si préscolaire ak élémentaire ndax kuréel la boo xamante ni tey. kuréel bu am taxawaay la. waaw su syndicat des enseignants du préscolaire et de l'élémentaire moom laa jiite euh, depuis 2007 mu nekk un jeune syndicat te biñ ko taxawalee ak maa ñoo xam ne presque maak ñoo bokkoon formation génn nekk G13 ak G14 alors mu nekk syndicat bu rëy boo xam ne tey su fekkoon dañuy base tey dañ ne élection de représentativité ci 2017 bi bon man ñun bokk ci woon. wala boog participer wuñ fi woon wala campagne yoon parce que boobu dafa fekk sama soxna euh, feebaroon. Mm. Euh, boobu sax moom euh, sama jabar boobu elle en France. alors donc ma nekkoon ci loolu demoon foofu ci wetam alors moo tax ba taxawaay bi ñu ci waroon am amuñ ko ci ak yooyu. mais su fekkee ne cotisation syndicale rek lañ doon xool ci jamono yooyu ñun duñu tey sept syndicats représentatifs lañ wax kon du ñu génn ci set syndicats yi gën a mag. mais euh, au fil des ans aussi euh, li ma bokk ci pouvoir bi dafa am gàllankoor lu bare lu mu def ci sama syndicat parce que na ma waroon porter les revendications des enseignants defatuma ko woon na ma waroon nekkee sur le terrain syndical euh, dafa wàññeeku donc xam nga nit nit ñi moom kenn moomu leen ba pare euh, ku leen di défendre ak ku ñu gis ku leen yëg rek la ñu xam te comme boobu sama activité politique moo ëppoon Euh, ci ci ci activité syndicale bi donc loolu aussi sooxe na woon tuuti ci syndicat bi. moo tax nag tey euh, ma euh, ñu bëri syndicat bi ñaax ma pour que ma taxawaat. ci wàllu syndicat bi mais mais yéen taxawaay bi ngeen a war a am yéen enseignants yi bokk ci yéen enseignants républicains yi taxawaay bi ngeen faral war a di am dëgg di défendre président ma Sall ci la jëm ci wàllum éducation wala ministère bi parfois dafay des lu waral loolu. waa loolu aussi li ko indi mooy ñàkk wekk bi ñu wekk jàngalekat yu bokk APR ku leen ñàkk ministre bi. ministre bi moom ni mu waroon collaborer ak ñun defu ko parce que ñun pour ñu toog ak moom sax problème la man de mus benn yoon laa fàttaliku te boobu mooy bi ñu waree dem Kanel ak def fa activité euh, le ministre de l'éducation nationale euh, localité am la il nous a reçu mais musuma gis fu mu toog ak le réseau national des enseignants de la paix te pourtant moom jàngalekat la comme ñun di suñu frère man su ma sañoon du ma am ak moom benn xaar ma yàlla waaye Euh, su comme moom dafa jàpp ne moom ministre la man syndicaliste la man je je porte les revendications des syndicats te boobaa kon maa moom du ñu duñ euh, bokk ay intérêt mais su fekkee. ndax li nga ko mënut a wax ci biir lépp ci mbedd mi nga koy wax. ah mais bien sûr oui lu ma awma mayuma bunt bu ma mën a ñëw toog di ko wax jafe-jafe yi ne ko monsieur le ministre lii ak lii ak lii moom xam na ne moom sama mag la moom xam na ne su fekkee humainement la rek moom sama mag la man rakkam la moom xam na loolu mais su fekkee moom dafa sol mbubu ministre man ma sol mbubu syndicat moom damay defanteeg moom ba mu saf lu mu ci bañul man bañuma ko ci. du ma ci xool Macky Sall du ma ci xool ma sàmba ma dem mais su ma sañoon euh, dañuy am relation yu civilisée yu yu normal bu ko defee lu ma xam si jàng bi ma jàppale ko ci loo xam ne day defar lu loo xam ne dafay yàq ma ne ko ah monsieur le ministre nen moytu lii. mais c'est dommage. d'accord jërëjëf euh, Amar Sane Camara ñu lay sant di gërëm. waaw Abdou Khadre euh, kontaan naa lool ci émission bi vraiment j'ai même pas vu le temps passer yëguma sax aussi koor gi. <laughs> ak yooyu bien que li des ci ndogu bi des na tuuti. Uh-huh. waa mais maa ngi ziyaare ñëpp. di baalo àq ñëpp di ñaan yàlla kooru jàmm. Euh, ñu wor ko ci jàmm ak salaam ànd ak jàmm ànd ak wér yàlla dolli sutura gi dolli mën-mën gi képp ku poos yi diis. Euh, képp koo xam ne rek boo woree ba ngoon yàlla may loolu loo loo loo loo loo dogee di ñaanal président Macky Sall moom tamit euh, jàmm ak salaam euh, mu gën a téye réew mi yàlla gën ko dolli xel mu gën a mën a dimbale askan bi mën a gën a jàppale askan bi fii ñu doon defee émission bi aussi vraiment maa ngi fi ñaan yàlla sutura waaw ak ca kanam ngeen gën a dem ca kanam nekk ci rajo yi rajo yi gën a gën a mag ci Sénégal jërëjëf euh, Amath Suzanne Camara mbokk yi responsable politique euh, APR la euh, ci Koungheul moo jiite syndicat bi ëmb jàngalekat yi nekk ci préscolaire ak élémentaire moom la ñu invité woon ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot 15h jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf.